bokk internet yaatal vision dal leen ak jàmm ñu dikk ak yéen ci la gën a fës ca conseil constitutionnel ni ki tey jële ginnaaw tirage au sort le kii di Ousmane kan nag dañ koo daal di génne ci list ba ni tànneen nag ñi nga xam ñoo war a bokk ci élection yële ak Cheikh Hadjibou Soumaré ñoom nag la war a loolee Cheikh Hadjibou Soumaré xamee seegul nag la tax ñu génne ko nag ndaxam dafa matalagut ay per dafa matalagut ay pernaasam waaw wala deetu wala dafa dëkk daal di joxe gut caution loolee nag lu ca mënti xaw xamee su gut dara na ko ñu gàllankoor ko moom meli waaye Ousmane Kane nag moomee daal daal di joxe wut nag caution bu toll ci fanweeri million loolu tax ñu daal di koy génn ba mu seet wicc nag moom mu daal di teel a xam fa mu féete kii di Ousmane Sonko nag bu nu sukkandikoo nag ci xibaar yi nga xamante ne bii jotes naa rot ñu ngi ci traitement am ay dossier am ngir daal di koy xam ba xam moom dana ci dana jàll wala du jàll moom kii di Ousmane Sonko waaye lu ci manti am nag ñu daal di xam le nag ne mandataire bi nag danoo wax ne dafa daal di wut foofee muy met lépp sërëk door dóor li ngir moom mi nga xamante ni bi mooy di avocat Ousmane Sonko waaye daal di koy teewal foofee ca conseil constitutionnel moom mi nag ginnaaw ñàkk a yegg seem nag looloo tax ñu daal di ajandi nag dossier Ousmane Sonko ba ci kanam ba xam dina daal di yegg si ca jotaay boobule am déet loolee moo gën a fees foofee maître El Hadji Diouf it ñu daal di xam ne nag ne dafa manqué nag ay permanence moom dafa bëri ay doublon looloo tax nag moom it ñu daal di koy ajandi ngir mu mën a mottali li nga xamante ne bi moo di permanence am yooyu moom maître El Hadji Diouf